ginnaaw loolu nag bala ñoo dugg ci mbir mi ñu ngi tàllal suñu loxo suñu borom mi nga xam ne mooy boroom kàttan te mooy borom mu man te mooy ki nga xam ne moo mën a dimbale nit ba mu mën a def li mu bëgg lépp ñu ngi koy ñaan ci kàttanam ak manam ak ak ak ak xam sañ-sañam boobee mu jox Seex Mamadu Muntaxa kàttan ak wér ak man sàmmal ko itam li nga xam ne moo ko tax a jóg ba ni nga xam ni la ko bëggee mu mën koo def ni mu ko bëggee te ba taji ci ngërëm suñ borom tañ ànd ak suñ Tuubaa ànd kook moom di ñu ko ñaanal itam képp koo xam ne lislaam moo la tax a jóg yàlla na la suñ borom taxawu yàlla na suñu borom jàppale yàlla na suñ borom téyel boppam ba ni nga yéenee def ci lislaam nga def ko man cee daje ngërëmu suñ borom loolu suñ borom mën na ko jàpp nag yàlla nañ ko defal ginnaaw loolu nag ginnaaw ajuma ji weesu dañoo waxoon daa am aaya boo xam ne dañ cee waxtaanoon muy fi nga xam ne suñ borom dafa wax ne adduna sii de li fi nekk lépp tàggatan naa leen ko waaye ñu am ci ab seetlu buñ ca seetlu woon mooy bi nga xamee ne suñ borom bi mu waxee ne tàggatal naa leen àdduna sépp man ngeen koo jariñoo ni ngeen ko bëggee da caa teg fam suuf yi mën a kibiya mu tekki ne kon jariñoo loolee nga xam ne mooy njariñ yi nekk ci àdduna mu ne su koo def ci lu dul faw nga ñàkk soog caa mën a soog mën caa jariñoo ni nga ci bëgg jariñoo ba ja tegaate itam wu nu nusur mooy ñu xam ne buñ ko buñ cee jariñu itam war naa am nun ci tënku ba tax ñu mën caa dajeeg li nga xam ne ne la moom la suñu borom bëgg ñu jariñoo ko ak ndi mën caa daje ak payam itam ci jariñoo gi nga xam ne moom lañ ko jariñoo ñu xamoon ne alal mi nga xam ne moo gën a soxal àdduna sépp moo gën a soxal doomu aadama yépp itam suñ borom tuutalu ko ndax tuddi na ko aw yiw tuddi ko itam ngëneel tuddi an askane ko ci boppam ndax wax na ne wa innahu li xubbil xayri la sadid mu mel ni kon alal nee na aw yiw la woo xam ne doomu aadama yépp dañ koo bëgg delluwaat itam wax ne wa aatuhum min maalillahi allati aataakum dellu waxaat itam ne wa izaa qudiyati salaat fantashiru fil ardi wabtaxu min fadlillah mu mel ni kon bu loo xam ne suñ borom da ko tuddee aw yiw tuddee ko ngëneel tuddee ko itam askaneel koy ci boppam kon loolu xam nañ ne war nañoo góorlu ngir def suñ kon kéem kéemtulaay kàttan ngir man koo am waaye buñ ko amee na it dafa am noo xam ne noonu la lislaam bëgg boo amee alal nga amee ko nga amee ko noona daa am da am na noo xam ne itam bëgg na ne boo amee alal ba noppi itam nga yore ko noona am na nu bëgg nga amee ko am na nu bëgg na nga yore li nga xam ne moom nga am li nga xam ne moom la bëgg nga nga amee ko alal mooy faw danga koy amee ci yoon wi nga xam ne ay tappale du ca nekk nax nit du ca nekk lekk alali jàmbur du ca nekk waaye da nga koy ci amin ci amin woo xam ne yaa ko ñàkk jaar fa nga war jaar ba am ko boo ko amee ba noppi itam duudul loo xam ne da ngay wax ne maa ko moom rek sañ naa ko téye waaye dafa am loo xam ne dala dala la caa war ndax da nga caa war a dundal war nga caa dundal sa njaboot war nga caa dundal say bokk war nga cee joxe asaka war nga cee sarxe kon mu mel ni yaa moom alal ji waaye am na nu mu bëgg suñ borom nu mu bëgg noo xam ne moom koy moom nga koy téye nga xam ne doo ko téye rek ci si sa bëgg-bëgg bopp waaye da nga koy téye ni nga xam ne lu suñu borom bëgg nga téye ko alal alal joojee itam niñ koy niñ koy téye bokk na ca ñu jéem fexe nu mu yokkoo fexe itam bañ ko amee ba noppi itam du doon loo xam ne dañ koy pasar pasare waaye dañuy dañ koy teg fa dañ koy dañ koy jëfandikoo fii ci ko war a jëfandikoo képp day doon yoo xam ne itam du doon loo xam ne doo ko amee ku ne ku ne rek ban man war nga koo mën a jox waaye ka koy jox dafay dafa war a doon koo xam ne am na mu xelam mën a sàmm alal ja man koo téye ni mu ko war a téye boo ko amee ba ba pare itam suñ borom dafa tegaat leneen mooy alal joojee nga xam nga xam ne yaa ko moom am ko dala koo sàmmal nam na la ko sàmmale mooy kenn suñu la sàcc kenn suñu sañuta sañuta ñëw ñëw daal di maanaam fëkk sa alal waaye lépp da ngay jaar da ngay da day doomu aadama ji day war a jaar fi mu war a jaar ngir doon loo xam ne loola mooy téye alal ja nga xam ne moom la yor kon mu mel ni lislaam day doyadalul alal jox na ko jox na ko itur yu rëy ndax tudd na ko aw yiw tudde na ko ngëne la tudde na ko itam askan askaneel na ko suñ borom ci ci boppam kon mu mel ni kon loolu lu rëy la waaye am gi itam nag daa am nu mu bëgg nga amee ko boo ko amee ba noppi itam dafa am nu mu bëgg nga doxee ca noona kon mu doon loo xam ne kon lu mat a bàyyi xel la ndax yaakaar naa ne alal lu rëy la loo xam ne suñ borom teg na ko foofu waaye lim koy teg teg foofu itam mu doon loo xam ne àdduna si képp lañ koy jariñoo teel nañoo xamal ne. adduna sii nga xam ne moom ngeen ko moo tax ngeen ngeen di ngeen mën a jariñoo alal yooyu ba tax ma def ko zinatul almaal wal banuuna zinatul xayaati dunya def na ko muy taar boo xam ne day taaral dundug doomu aadama di taaral itam ak di bokk na ci lii taaral yitam dundug doomu aadama ak njaboot kon mu mel ni loolu lépp day tekk ne lislaam day jox na alal wàll gu rëy rëyal na ko waaye nag ba mu ko rëyalee itam dalaa laa sàkk dafa am noo xam ne la sàkk ci yow mooy ni nga koy war a sàkkoo dafa am noo xam ne itam moom nga ko war a téye kon moom loolu ñaar yooyu yëpp nag ñu war a war ko bàyyi xel xam ne alal lu am solo la waaye nag daa am noo ko war a amee daa am nooy xam ne itam moom nga ko war a téye ba nga ko amee ba nopp kon loolu mooy li nga xam ne mooy moo nuy wan ne lislaam day sàgganiwul àdduna doyadalu doyadalu ko ndax xam na ne àdduna doon na loo xam ne mooy yoon wi ñu mën a jaar ngir mën a jariñu àllaaxira waaye nag jaar jaar gu yoon wi nga xam ne moom la ñuy jaar ngir mën a jariñu àllaaxira ëllëg ji nga xam ne fa lañ jëm te fa lañu sax yoon woowee dafa am noo fi war a jaare daa am noo fi war a doxee du ne danga fiy doxee sa bakkanu bopp du da ngay du fi gës doxee sa sa sa gis yi nu bopp waaye da ngay dox da ngay tënku ci ni nga xam ne ni la suñ borom bëgg nga nga nga amee ko day tënku itam ci ni nga am boo amee àll ba noppi itam nan nga ko war téye da ngay ci ni nga xam ne ni suñ borom bëgg nga tënki nga tënku ca loola ndax doo sañ a doo sañ a am alal ne am naa ko rek daal di koy rënk mu doon loo xam ne da nga koy téye yow kese déedéet sañoo koo rënk ndax su ko doomi aadama yi soxlaa sañoo koo téye war nga caa ban war nga caa joxe war nga caa dimbalee war nga caa jàppale jàppale ñi nga xam ne xëy na seen seen man-man àggul foofu kon loolu wooy tekki kon ne lislaam de bàyyi na xel ni mu bàyyee xel ruu gi nga xam ne lu baax a koy dundal ni la bàyyee xel yitam suñu jëmm yi nga xam ne am na lu ko war a dundal te lool yee ko war a dundal nag dafa am nuñ ko nuñ fa war a jaare dafa am nuñ ko war a doxee dafa am noo xam ne itam mooy mën a tax ñu mën caa am ngërëmul suñ borom kon yàlla suñu borom mi nga xam ne mooy borom kattan te mooy borom ak yàlla nañu xamal ni nga xam ne te moom lañu war a sàkkoo suñ ko amee ba noppi itam yàlla nañu xamal ni nga xam ne ni nga xam ne te xamal nañu ko ba noppi ndax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam yónni na ko te leeral nañu loolu xamal nañu itam xamal nañu nañ war a sàkkoo xamal nañu yitam bi ñu amee alal ba noppi itam nan lañ ci war a jëfandikoo ak nan nan lañ ci war a doxee loolee nag yàlla nañu suñu borom dimbale bañ koy sàkku niñ ko war a sàkkoo di ko di ca doxee niñ ci war a doxee ñu delloo ci bi nga xamee ne suñu borom wax na ni tàggatal naa leen suuf ba bay waaye xam ne ba nga koy tàggatee itam won nañu ne tàggat gi itam du tekki ne da ngay toog sa kër rek wala da ngay bank say loxo da nga bëgg lépp mu ñëw la mu ñëw ci yow mooy fam suuf yi mën a kibiyaa waaye bi nga xamee ne itam wax na ne tàggatal naa leen suuf képp koo xam ne da ngaa jàpp ne fa nga ko war a fa nga war a amee mooy barab sàngam képp bu boobaa yaa tënk sa bopp yàlla tënku la ndax yàlla waxunu fenn lee fala alal nekk waaye dañu wax rek ne wuti leen ko ci kaw suuf si kon ci kaw suuf la nekk rek boo tënkee sa bopp ci barab sàngam la nekk yow yaa fa tënk sa bopp waaye yàlla tënk tënk lu fa yaa ñoo ngi jéggalu ñëpp nag di bal ak ñëpp